mbokku téléspectateur Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm tey nag dama wàccaat ci terrain bi bu ngeen gisee fi ma togg rek ngeen xam ne maa ngi géej tey nag fii lañ ñëw muy Yoff Tongoor ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di mool yi waaye waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di euh, ñi nekk ci direction wu euh, quai de pêche bu Yoff Tongoor ci noonu nag dañoo nemmeeku na rek ci fan yii nii géej gi dafa yëngatu torop ndaxte nag mool yi ñu ngi ñàkk seen bakkan ci biir géej gi dañoo bëgg ñëw nag waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di waa direction bi ñu indi ay explication li waral li ni mel waaye buñ paree rek dinañ jàll ci ñi nga xam ne ñoo di mool yi di dugg ci biir géej gi ñu indi leeral ci li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci fan yi nii fii ci Yoff Tongoor asalaamaaleykum maa ngi tudd Jabel Mbegere di porte parole bu GIE interprofessionnel bi bu quai de pêche bi di représentant di maire aussi si biir quai de ñu dénk ma aussi tamit commission bi nga xamante ne ne moo yor wàllu salubrité ñu ñëw tey ci quai de pêche bi fekk la fi am euh, yenn xew-xew yoo xam ne am na fi temps yi muy ndaw yi nga xam ne dañuy faatu ci biir géej gi loolu ban leeral nga ci mën indi mu mel ni dafa am ay accusation yoo xam ne da yaakaar ne dañ ko teg ci seen i ndodd alors que demeewul noonu waaw jërëjëf loolu moom dinañ sawar pour wax si quoi parce que accident bi suñu kaw la dal ndax bon ñi si euh, faatu suñuy njaboot lañ ñi si tamit aussi tamit dund suñuy njaboot lañ mais accident bi bon mën naa wax ne ne vraiment am nañ si nag mbetteel quoi donte nag bon am nañ si lu ñu naqari trop trop trop trop trop parce que euh, lii dal ci kaw famille boobu sunu su ñun la dal mais nañ ci taxawee mosuñu ko taxawee sax ci accident bu am fii parce que yàlla dogal na ne bi affaire bi amee ñoom gaal gi dafa waroon def quatre jours jàpp cinq jours bi mu dépassé jours yi mu waroon a teer teerul parce que gaalu marée la ñoom si la ñu ñëw fii si quai de pêche bi saisir ñu ne seen gaal dafa doon def 4 jours mais teerul ba fi ne mu si 5 jours xaw ma 6 bi ñëwee wax ñu ko ñu ne leen en ah bon ñu ne waaw ñun ñu relever lépp woo agent bi nga xamante ne DSHP la yor moom moo yor wàllu surveillance kooku état moo ko fi teg bi ñu ko woowee ñëw mu saisir kii bi yëpp def enquête bi def yëpp ñu laaj ko numéro gaal même gaal gi sax boo xoolee permis bi newul en règle mais terewul xool ñu loolu yëpp dañu ne comme que suñu njaboot lañ nañ ci taxaw ñu jël lépp saisir ko. yóbbu ko fi nga xamante ne ne fu ñooñu ñoo yor wàllu surveillance ci état bi mais yemuñu si dañ si dolli loo xam ne sax du suñu rôle mosuñu ko def dañ fi mujjee jéggi sax agent bi pour xër biñ si xër ak njaboote ñu njabootee ñiy dem tax ba dañu mujjee sax jël ki nga xamante ne ne mooy directeur bi nga xamante ne mooy commandant Ndiaye bu DSPS si boppam dañ ko en personne ne ko dimbali ñu ngir yàlla seet bi donte yéen a ngi si mais nañ ko yokk commandant boobu noonu bu leen neex mën ngeen fa dem lim si teg sax mooy ñun day bi ngeen ñu ko balancé balancé nañ ko fépp si Sénégal fépp fu kenn pêche nekk rek wala poste nekk fa balancé nañ ko fa wax ne am na gaal goo xamante ne am na cinq personnes kon mbir mi mu ngi fépp mais yemuñu si moom aussi mu teg si ne ah euh, lii am ba am mooy woon a marine parce que ñoom boo leen wooyee aussi ñoom tamit marine ñoom lañuy ñuy saisir ñoom parce que marine nag moo am moyens yi nga xamante ne mooy jóg pour seeti gaal wala ku am ay jafe-jafe. am na beneen gaal goo xamante ne au lieu de cinq personnes quatre personnes la def mu am benn mort trois yi ñoo dund te trois yi dundu yoof lañ dëkk mais quatrième personne bi dëkkul yoof famille boobu du ñu ay famille pêcheur. ñoom tamit la même beneen problème am fu ñoom ñu ne ñu nangu ñett yi dëkk yoofu teer seen doom dee ñu ngi dëkk Kër Massar. ñu ne loolu ñoom mënuñu ko ne ñu ko gëm ba dossier bi mujjee dem gendarmerie porte plainte sax da si am bi porte plainte amee man mi nga xam ne yàlla def na ne maa fi toogal maire eh, ñii tamit délégué ma ma nekk si diggante gendarmerie ak famille boobu nekk si diggante tamit aussi DSSP ñi nga xam ne ñoo di wàllu surveillance pour ñu pour ñu feeñ kon mën naa wax ne kon ñoom bu ñu nee kee bi jógul kee bi jóg na parce que saisir nañ ma woote nañ fële def nañ loolu yëpp te aussi ñoom fii machine bi feeñee bañ xam ne ne. seen doom yooyu dee nañu bu amul woon seet du fa feeñee parce que mu ngi feeñee yaraax la ko nit for yóbbu ko foofu noonu chef de bi woote te kee bi sax ñoo bind këyit joxe pour ñoom ñu mën a jot machine bi kon mën naa ne kon quai de bi si boppam rôle am def na ko ba mu jeex takk. bi problème bi amee maire day def gaal gu fi am jafe-jafe fii si yoof parce que nag lii day faral di am boo amee problème maire dina jël essence jàppalee la ko carburant bu fekkee ne gis ñu la dina ànd ak famille bi dina ànd ak bon yenn responsable yoo xam ne ñu ngi nekk si mairie bi ay conseil am spécial am ànd ak boo yenn ci ay kii ñu ñëw fekk si la ñëw indi ndimbal jox la bii bi mu amee mairie biñ koy saraxal la ko yëg parce que nag moment yooyu man maa ngi xër ak fexe naka la ñuy def ba sama jarbaat boobu nekk si biir gaal gi ak ña sa nekk ñu fexe ba gis leen kon benn voie bi rek laa topp ba pare aussi tamit nekk si beneen gaal bi nga xam ne dañ porté plainte ñooñu di leen jàppale au niveau du gendarmerie pour jéem a leeral ne leen ne accident la du meurtre kon ñaari cas yooyu ku ko boole def ko yaakaar naa la waroon def def nga ko ñii nekk fi aussi tamit kenn toog bi ma demee si dëj bi ma ne leen ah jafe-jafe de maa ngi leen di baalu àqu yéen ñëpp ci fan yi ñu weesu ñu gis ne mool yi li ñuy faatoo ci géej gi ëpp na torop léegi loolu lan moo ko mën expliquer lan moo ko waral tamit waaw day tombee rek parce que période bi ñu toll nii bii dañ nekk si cooroon day nekk période boo xamante ne ne changement du climatique bi nga xamante ne moo am ngelaw yi day faral di bari période bi day bari trop encore tam yëngaa yi day xaw a bari loolu nag bu amee alerte météo dina am parce que ANACIM ñun ñu ngi yëgee ak ñoom ñoom nag bu ñu envoyé message yi dinañ ko def par écrit pour ñi nga xamante ne mën nañ liir dañ ko def tam aussi tam vocal pour pêcheurs yi mel ni man nga xamante ne jànguñu bu ñu jegee vocal bi mën a xam ne lii tey jii géej gi dina def temps de mètres wala dina yëngu suba wala dina yëngu ginnaaw suba loolu nag pêcheurs yi ñenn ñi dañ koy xam mais dañ dëgër bopp dañ siy forcé dem si géej tàng bii nag loolu la tombeel période bi tam aussi accident bi bi muy am boobu alerte météo bi yëg nañ ko ñoom yëg nañ ko ah amul kenn ku naan yëgu ko léegi ñoom bi ñu ko yëgee peut-être dañ siy forcé parce que dañ naan boo demee boo ñëwee day fekk jën du bari loo am rek da ngay am xaalis yooyu mooy indi problème yi. actuellement nii bon jën bi a changement climatique bi dafa gën a yéeg yéeg boobu mu yéeg nag ñun am na travail bu ñu def ñenn si ñun acteurs yi ba au niveau du ministère xool nañ ne ne bato yi ak pêche artisanale bi war ñu bokk même place ba ministre bi fi nekk le ministre Alioune Ndoye jël na bato yooyu ñu aj leen ba ay douze mille bu leen ajee douze mille kon six mille bi dina sori gaa mais tam aussi di nga mën a liggéey tranquillement doo am mais nag gaal lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër bu la si kenn nax bu géej gi ajouté ba ñu am alerte météo ñu ngi joxe information ne bépp mool bu toog doo am jafe-jafe parce que jafe-jafe bii nga gis nii bi la fi indi tey jii pour nga ñëw pour jéem ko euh, gëstu pour am si ay leeral am na Joal am na Kafountine mu nekk même bés même heure même temps mu def fa ay jéey. bu ñu duggee ci biir géej bi nekk en danger est-ce que dinañ am la possibilité contacter leen. Mm-hmm. par exemple yéen ngeen localiser leen ba xam fi ñu nekk pour mun leen jàppale. ndaxte am na fu ñuy toll ñoom duñu am réseau pour jot leen. waaw loolu problème mu réseau boobu noonu ah jërëjëf damay kontaan si question bi nga ma posé question bi ma posé dama siy kontaan parce que problème mu réseau yooyu li ko mën a régler yëpp mooy géolocalisation yi parce que géej am na fa boo fa tolloo mënoo am réseau par téléphone. encore mënuñu la jéem a xool fan nga mën a nekk par position par GPS parce que woowante bi ab day xaw a jafe. mais ñun biñ ko waxtaanee ñun acteur yi ba ñu ñëw ñoom indil nañ ñu benn appareil à l'époque si wàllu géolocalisation biñ ko indilee CLPA bi coordinateur baa ngi toog ñun biñ ko xoolee gis nañ ne lii méngoowul ak ñun niñ ko bëggee ba mujj gi dañ mujjee jël ñun suñu xel ak ñoom seen expérience la ñu mujjee jël ñu boole ko ba indil ñu si benn appareil boo xamante ne appareil géolocalisation la appareil yi mu ngi nii ngay gis nii lii moom bu les kenn heure bu tasee si Sénégal je pense que accident bu amee dina mën a yombal lépp parce que lii da ngay communiquer ak marine da ngay communiquer aussi tamit DSSP bi nga xam moom la doon wax sànq encore tamit aussi ñoom dinañ am benn télé boo xam ne dañ koy jël def ko fii si biir kii bi fii nii coordinateur bi moo koy gérer télé bu ñu ko defee yow fekkee ne accident bi am na boo bësee appareil bi bii boo ko déclenché am na benn antenne buy génn antenne boobu bu génnee nii bu la si kenn marine lépp loo xam ne dafa ne aajowu surveillance rek dina xam ne kii dafa nekk si danger position bi aussi tamit ñoom dañ koy localiser si saa si dañ xam ne moo tax ñu tuddee ko géolocalisation dinañ xam ne ne place nangam nga ne dem nañ tam ba yokk sax si biir appareil yu mujjee génn fii si kaw nii appareil bi état du Sénégal mu ngi siy yëgee ñun ba pare na si fi ñu toll ni nag comme que quatre kii lañ woon yu ñëw ku si nekk sa bos mais ñun bii lañ yoroon parce que bii lañ doon yëgéeyal mais si biir kaat yi ku si nekk ñëw nga wan sa produit yi bii boo ko amee mooy bii gën ñun bii bi ñu ko indilee dem nañ ba dooleel ñu si boo paanee essence am na foo xamante ne ni même boo jàngul ñu ngi si dessiné benn mandu essence moom ngay bës ak xam ne essence la soo paanee moteur am na fu ñu dessiné moteur di xam ne bii boo paanee moteur la fekk ne aussi da nga feebar am na fu ñu def benn genre de plus bu ànd ak croix ñu xam ne kii dafa feebar kon ñun bu ñuy dem di la seeti ji wala di la jëli ji dinañu mën a sóoraale yoo xamante ne dina la si mën a gérer ba boo teere doo am benn problème lii moom bu ñëwee réer accident dina wàññeeku mais day fekk aussi tamit bu alerte bi jógee kenn bañ a dem géej. ko. non lii fi ñu toll nii am na essayage ñu am ay mool yu ñu ko jox un partout ba ñu jël ko ñoom ñu xool vérifier ko même boo réeree loo sori sori sori sori ay vingt mille miles sax dinañ xam fan nga ne mais bu ñu nee comme dañu ne woon essayage indi ko te mu nekk quatre partenaires yu fi ñëw état du Sénégal day bañ mu mel ni dafa jël bii bàyyi bële li mu bëgg mooy <coughs> bi muy jël benn dina méngoo ak ñun li nga xam ne soxla nañ ko beneen bi aussi itam bi muy jël dañ bëgg mu bañ a am benn charge charge yi mooy am na si parmi yi fi ñëw yoo xamante ne ne il faut nga am crédit pour mën ko utiliser bu fekkee mool mi xëy géej gi période boobu neexul kon day am problème mu jafe-jafe crédit mais bii nii amul benn dépense booy def bañ na ko ba booy chargé sax danga koy jël teg ko nii rek boo fàttee sax dem géej du tooy te aussi tam bii bu waddee si biir ndox mi bu gaal gi këppoo ba nga xamante ne wadd na boo bësee kii ba mu déclenché lii day frotté si ndox mi position boo mën nekk dinañ mën a localiser nii la nee nañ nag ne moo ñoom pare nañu dañ leen bàyyi ñoom seen techniciens ñu xool ñeent yi fi nekk ban moo gën si ñun bu ko defee ñu mën ko jël mën ko tasaare bu ko defee bu mën a law si Sénégal gépp je pense que ne ah état du Sénégal li mu wax bu ko defee ñu boolekaat di sol ay gilet boolekaat bu alerte météo bi amee ñu toog accident mën na wàññeeku bu baax mais tant que nag alerte mu ngi am gaal di dem jàppeel ni ne accident du noppi am si biir géej gi. li ñuy wax dëgg la deey bare na si maanaam tefes Sénégal yëpp. waaye lii KDPS nag kan moo ko fi teg di état bi moo ko fi teg di léegi chaque dimanche defoon na nu benn règlement boo xam ne bi feebar bi génnee benn gaal dootul demee géej te gaal gu dem géej boobaa ñoom daan amay daan yu ñu lay teg sa kaw lan moo tax ñoom KDPS yëpp nu ne ay KD moderne nañu defuñu fi ay appareil yoo xam ne bu météo defee alerte ñoom daanu jël seen matukaay ni jour sàngam mu benn gaal dugg si géej bu nu jëloon matukaay bi loolu maanaam accident yi du du am waaye am ñàkk compétence jël nu si benn matukaay bi parce que ñoom tey lanan man tere seen intérêt bu ñëwee loo xam dañ siy gañe daanu taxaw maanaam tere xam nga tey ñun ñëpp ay APR parce que Macky Sall ñun ñoo ko fal du dëgg xam nga ñoo ko fal tey bu defoon lii feebar am mbas am ni dañuy jël ku si nekk jàngee yaaw yi maanaam nga arrêté dimanche bi bu ko defee naan ah man sa tër bi ma nekk tere naa fi jël naa fi matukaay yooyu am na lu ko gën nanu tek fii ay appareil yoo xam ni bu météo signalé def alerte ñoom ni yëkkati ay drapeau yu rouge ni appartement naa bu benn gaal dem géej ñu jël service bi doy teg service kon benn gaal dem géej waaw parce que mool Sénégal boo bëggee dégg-dégg ñun suñu maanaam si xottu gerte nañ nekk ñoo ngi dem géej waaye kenn amu si garanti kenn parce que fii tey gaal mën na fi réer amul benn zodiac bu nekk fii rek wala gaal réer nu jóg uniquement dem seeti ko amu ko amu ko te ñii ñàkk moyen bu nu am rek moo tax xale yi dem te déngaat nga fi barki démb su mujjun parce que tey sen quai de pêche bu nu fekkoon teg nañu yoo xam ne ay appareil yoo xam ne tey bu nee alerte am na météo ñoom ñu signalé ko tek ay drapeau rouge tamit kenn du dem géej woo nañ diw al woote nañ loolu dafa ma xam nga nit ki tey même boo ko joxul fukki dërëm yow mi nga xam ne yaay représentant bi ñëwul taxaw tey boo taxawee maanaam mu gis la rek maanaam dina nga wàññi si moom lu bëri waaye pour def na nii rek maanaam amul benn njëriñ amul benn ñeen parce que bakkanoo doomu aadama dafa foor mooy li ma la wax rek gis nga bu nu alerté woon nu takk seen ay drapeaux yu rouge benn gaawal dem géej kenn du dem géej. mais yooyu noonu won nañu benn appareil boo xam ne appareil la nee na ñenn ci yéen am nañ ko. dëgg fii amul benn gaal gu fi réer nu nii ma ngi place sàngam amul amul gis nga ñuy wax ni bu ma leen bàyyi Sénégal yi ñuy nax yooyu amul nanu bàyyi Sénégal yi ñuy nax tanu wax Sénégal yi dëgg. fii amul benn gaal gu fi réer nu def appareil bi nu ni gaal gi mi ngi fii amul bu mu fekkee dafa am ñoom dem leen laaj ban gaal moo fi ban gaal moo fi réer nu ni jàpp man mi am na sama doom baayu fi réer plus de six jours plus de six jours saar waxandoor yi ñoo leen jàpp te jamono yi li ñu wax mi ngi si bopp gaal gi bii ñoo ngi ko def si bopp gaal kenn gisu ko xam nga lan bu nu fonto nanu wax moo leen dëgg moo gën ñu téye suñu bakkan di ko tayle si gii ji rek di tayle sunu bakkan te amul benn njëriñ nanu wax ñu dëgg moo gën yooyu xool boo demee nga laaj dem leen nga ni leen ban gaal moo fi réer yooyu nuy wax nu génne ko amul kenn du la ko génneel demal fu la neex. jafe-jafe yi ñuy jànkuwante si géej gi bare na muy leen si wàllu géej gi ren jii li fi dee si doomu aadama masu fi dee quai de pêche yoo fi dëgg la am nañ fi njëriñ amuñu fi njariñ ndax lenn dafa lenn moom mën nekk géej bu fekkee dañ ne tàng da nga ko signalé yow quai de pêche yi fi nekkal yoof li nga man def lenn la mooy nga wàcc si tefes gi signalé mool ni am na am na tàng boo xam ne mi ngi fay wàcc bu ko defee mool yi mën si jël seen matukaay bu fekkee nag mool yi dañu bañ dëkk bi am na yoon ñu teg leen si yoon bañ dugg si géej gi ndax géej bu ñu si duggee am na tàng yoo xam ne bu leen si fekkee collègue yooyu da nga war war a ñëw taxaw si tefes gi nga takk fi ay drapeau yoo xamante ni képp ku ko gis dana xam ni tey am na tàng boo xamante ni bis sàngam mi ngay ñëw mool daan nga mën bàyyi xel wante yooyu yëpp boo ko defoo si tefes gi yooyu yëpp amul njëriñ kon tey fi tey catastrophe yi nga xamante ni maanaam day ñëw bàyyee ko si géej gi kon mu dal mool mi day day yomb sa quai de yi fii bari na si yoo xamante ne seen intérêt nañ fi nekkal nekkaluñu fi mool seen bopp nañ fi nekkal te am na si yoo xamante ne ñoom arrangé wu leen arrangé wul état moo tax tey fi tey am na si yu bëre yoo xam ne yéen ñi nga ne ni yéen yor site internet yi ñëw si ñoom am na si yoo xam ne boo leen kaa wax ñëw jox leen caméra yi noo wax loolu am na si yoo xam ne duñ wax comme dëgg gi nga xamante ne moom moo nekk si wàllu géej duñ ko ñeme wax ndax xamal duñ ko ñemee wax ndax buñ ko waxee état mën na leen teg ay daan wala mu wàcce leen moo tax am na si yoo xamante ne fii duñ ko wax moo li ñuy jànkandee si géej ji bëri na trop waaw bëri na trop si yoo xamante ni ñun moo si boppam ñun noo ko xam ñun nga xam ne dañuy dugg si géej ji di fi def ay nangami jour waaw man mii di waxante yow xale laa de dëgg la xaw ma dara wante géej ji nit man ma si wax lu ma loo xamante ne tey fi tey man na ma yeesu ngéem xam naa si lu bëri ndax 2002 ba 2002 2000 ba léegi maa ngi dem géej kon xam naa si loo xamante ni tey fi tey maîtrise naa si loo xamante ni mën naa ko wax loo xamante du dañ waaw. léegi euh, est-ce que tamit du ngeen di dem ba dugg foo xam ne du seen place waru leen faa yegg moo tax yenn dee di bëri tamit. déedéet déedéet ñun amul am nañu kaaraange yoo xam ne tey fi tey si géej gi mën nañ fa dugg tak benn ndogal lu ñu fekk bu fekkee yàlla yàlla mbiru suñu borom nag dafa yéeme waaw ñun moom mënu dara yàlla moom man mooy def wante géej gi maanaam yàlla moo yor kiraa euh, euh, euh, nga ñi ñëpp ni ku si nekk nag yàlla suñu borom moo lay moo lay muccal ak sa sabablu tamit waaw ñun géej gi amul fu si du dugg amul fu si du dugg mën nañ fi dem fu nekk tamit yàlla def nañ tamit fu nu mënti dem tamit mën nañ ñëwaat si jàmm te dara dara duñ si fekk wante tamit nit mën na tamit mën nga dugg si gaal géej gi ngelaw ngay ngay ngay dem yàlla def sa gaal faq te yooyu yëpp maanaam bu fekkee sa gaal dafa fàq nga nekk foo xamante ne tey fi tey amoo koo xamante ne mën na la wallu kon bu boobaa balaa nit ki la wallu di ñëw bu boobaa yow mën nga dem mën nga mën nga dem si fi xaa te oor bi ak nawet bokkul bu dee nawet mën nga suux si géej gi maanaam suux nga suux si géej gi am ay fan am ay fan doo doo def dara ndax bu dee nawet day tàng te óor bi seddaay la man mën nga am si gaal gi benn fan wala ñaari fan boo gisul gaal boo saagoon bi si boppam moo lay rey te bu dee nawet mën nga def si géej gi ay fan ba ba ba ba ba gaal dal sa kaw doo am benn problème te bu dee óor bi boo suuxee maanaam gaa gaa gi dëpp nga nekk si kaw tum gi am ah, ñu bare sedd moo leen rey day dem ba am dootul ti téye gaa yi dootul mën a dem bu yàggee day dem ba seen loxo mooy toxe mu bàyyeeku dem bu dee bu dee tàngaay nag man nga am si gaa ay fan ba gaal dal sa kaw yàlla mën na def nga mucc waaw. wante yooy yëpp maanaam mbiru suñu borol la wante géej gi dama la bëgg wax ne la xamal la moo leen ñuy jànkoonteel bari na toro mën nu sa toog di ko wax. boo gisee clandestin yi ngay gis nii moo leen ko def yëpp si ëpp suñu état du Sénégal moo waral ni koy def ndax lan ndax géej yaa ngi nii géej yëpp yaay nañ ko ba tey yëpp jaay nañ ko ba man li ma ni yàggul barki Demba Ndiaye la la dama dem maare géej bote yi ma gis fii si yëpp si zone Sénégal bi nuy laa yëpp mu naan ay boto ay boto Sénégal benn si boto Sénégal yëpp ay boto boto chinois noonu ak boto Amérique ay boto kii boto bato espagnol noo fi ne fii di laaw di laaw di laaw si géej gi waaw géej gi maanaam moo leen wax ni tey tey te Sénégal léegi si boppam dafa bëri politique politique bi mooy nooy am loo xam ne noonu koy politiquer naan mool yi noonu dañoo yor matériel yoo xam ne dañ koy liggéey si géej di yàq géej géej kenn mënu ko yàq yàlla suñu borom moo ko man yàq bu fekkee si wàllu yàq dañoo wax si géej gi ni dañ koy yàq bateau de bateau de bateau de pêche yi ne si géej gi ñooy yàq géej gi ñi nga xamante ne amuñu fi am dëkkuñu fi duñu ay sénégalais ñoo ñooy yàq géej gi ndax ñooñu benn jënu nu laaw bu dee bu dee une tonne na nu laaw boo saaganu cent kilos nañ see soxla wala wala deux cent kilos des na dañ ko capacité géej gi kon kooku mooy yàq mool doo gis mool boo xam ne mi ngi dugg si géej gi fii moo moo jàpp jën di ko di ko këpp wala di ko tuur jën wu mu jàpp fii amaan na sénégalais yi njëriñ fi nañ koy indi si tefes gi jaay ak géej gi boote yi fay nekk yëpp man am naa si preuve ma léegi te maîtrise naa lu bare xam si lu bare booto yi nekk si géej gi yëpp amul booto boo xamante ni tey fi tey boo laajee une tonne boo saaganu 500 kilos yëpp daa këpp 500 kilos yëpp ndox mi la jamaat léegi 500 kilos yi nga këpp su ndox mi mu am benn njëriñ waaw te amaana ka jënoo noo noo laaw ñun sénégalais yi duñ ko lekk si beneen dëkk dañ koy yóbbu ñun noo noo koy noo koy noo koy noo koy jëfandikoo kon géej moo leen leen war naqaru bari na trop boo gisee dee yu bëri am si tefes gi yëpp tefes Sénégal yëpp si ëpp gouvernement Sénégal moo koy indi ngir lan calendrier bi am ba mool ñëpp di si wàññeeku nag mool yu bëri dem nañ Espagne waaw mool yu bëri dem nañ Espagne ndax léegi nee nañ géej gi mënatuñ fi liggéey ndax lan ngir ngir bota yi moo waral ñun mool yi ñu nekk si ay noono yu métti léegi tefes yi fii ne tefes Sénégal yëpp gisatoo mool boo xamante ne tey fi tey. bëgg nga sa morom mool ndax lan nee nga sa morom mool bi liggéey bi moo liggéey dafa yàq géej gi te fekk liggéey boobu yàqul géej gi liggéey boobu yàq si géej mi ngi fii ministre la pêche yi boppam moo fi signé ay contrat yoo xam ne tegul fenn waaw moo tax mool yi yi ñu am yi ñu am yëpp ministre la pêche moo nu ko teg waaw Umar moo nu teg yi yëpp dafa dafa signé ay contrat yoo xam ne tegul fenn moo lu fi daa tourné yaa ngi ay at ngi nii moo nu jàpp jën moo fi daa tourné yi mën nu jàpp jën joni fi daan wàcc si ñu kaa daan laaw di si sutur bo tey noo kaa dogaale laaw si biir géej moo tax jën woo mënatu fi wàcc si waaw man lii nii man man maa ko wax man amul lu ma see dal taf ma waay woo mu wuy la jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV ñun ñoo ko déggandoo dem nañ nag fi nga xam ne moo di direction wu quai de pêche bi waxtaan ak nga xam ne moo ko jiite jàll si nag ci ñi nga xam ne ñoo di mool yi maanaam ñu nekk fii ci géej gi gis ngeen coow li nga xam ne am na fi mu mel nii rek a xëccoo daf fee am ba pare nag ñàkk a déggoo am seen diggante ndax ku nekk rek yaa ngi defendre li nga xam ne rek moo di say intérêt nii lay demee saa su nekk nag Equivox TV information bu ñu fiy génnee rek dina doon loo xam ne dañ koy équilibré voilà nii lay demee jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.